bureau Sénat bu bees bi am na ay rëq-rëq ndax ñaar ci fukk ak ñaar yi ñu tabb yees dañoo far ci kàddu Elimane Hadi Kane bu Legs Africa looloo waral bu njiiti réew mi dindiwul li mu ndogal dinañu ko yóbb ci kanamu yoon. loi bi daf ne ñi nekk ci Sénat ñoom njëxaan na rek dañu war a mën a tëddee ñoom ñëpp nag. donc kenn warul ci mën a fësal ne bokk nga ci wàllu parti politique wala am na koy jàppale ci ñiy jongante politique mais yàlla def nag ci list bi mu am si au moins ñaar yuñ ci gis yoo xam ne ni wóor nag ci ay firnde que ñoom jot nañoo jàppale euh, ay politique maanaam mouvance présidentielle maanaam président ci boppam ci wàllu politique dégg nga ma donc ñooñu mënuñu nekk membre Sénat donc loolu moo tax euh, ñu ne mm, kii bi euh, dëkk bi dafa illégal moo taxit ñu ne kon président moom am na possibilité ci anam yu woyof yomb mu dindiwaat décret bi loolu lañ koy laaj mu def euh, wala ñu abrogé ko tout simplement. donc ñu jàpp ne bu deful loolu ci diir bi nga xam ne ni yoon maye naka bu boobaa dañuy dem def recours cour suprême pour abus de pouvoir. kon laaj bi samp mooy ndax ndogal lii dafa laal politique ndax nag jongante présidentielle yi ay weer yu néew a ci des. ah kenn du ko dàq de xam nga lu tax duñ ko dàq parce que xoolal loolu yàgg na fi nekk ñu wax ba sonn mu tàng xam lu ñu mais tey jii nii situation bi mu jëlee décision bi euh, xaw na sax bett nit ñi xaw na sax ñaaw tuuti parce que dañuy wax xanaa du senaa bii barki démb. moo jël décision ci affaire euh, Ousmane Sonko bi nga xam ne dafa bëgg a nekk candidat war a dem jëli ay euh, ay fiche parrainage euh, ñu ñu génne ko ci fichier électoral bi mu am benn décision de justice bu ne dañ ko war a delloowaat ci fichier bi Sénat bi ñu ko saisiré mu saytu loolu gis ne kii dañ ko war jox ko dëgg presque laan bés bu ci topp ñu am décision bu mel nii. waaye njiiti réew mi mën naa dellu gannaaw te tabb Sénat bu bees boo xam ni dañuy waxtaan ba juboo ci ay membres yu dal xelu ñëpp ngir élection yu jaar yoon. comme wax nañ ne déjà ñoom Sénat dafa am illégalité il faut ñu changer ko bu mu légal mais léegi légal boobu tey dafa war a ànd ak confiance des acteurs politiques moo tax ñu jàpp na ñun dafa war a defaat beneen décret. boo xam ne ni dafay am consensus moom ak acteur politiques yi pour ñu tànn ñu fay dugal muy nit ñoo xam ne ni wax dëgg fa la ñëpp kan amul loo ci laam-laame ndax kon nañ ne ñii dañuy tëddee njaaxaanaay parce que loolu dina am solo trop ci confiance bi nit di am ci élection yi di ñëw. Sénat yàgg na am ay jafe-jafe waaye ni ñu tabbee membre yu bees yi dara méngoowu ci ak yoon. bu njiiti réew mi dindiwul lii mu def dinañ koy yóbbu fa mbaxane doonee benn. ngir ëppal ci ay sañ-sañam